إني أخاتب النصارى تراب في أرضهم لمالك المتراب إني أخاتب النصارى تراب في أرضهم لمالك المتراب تيقنوا بأنني لله abdun xadimun li rasulillahi wa annani ma sirtu sa tabarruyi min kulli man bil kufri sa tajaruyi wala mudaa'inu sawi tanasuri inshaa man yamuunu bi tabasuri asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh bokki julli bokki taalibe yi ñoo ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen ziar di jiitu ci nuyoo beeg ziar bi Cheikh Modou Mountakha di nuyu itam suñu sang yii ne ci suñu ginnaaw di njabootu sëriñ bi di fàttali rek ne yeesalal nañ digal ci Cheikh Modou Mountakha ngir war a wecc ko fii ci Angleterre London kër goo xam ne kër bu lislaam lay doon ñu moomale ko Serigne Touba muy kër Serigne Touba di ci woon nag bépp taalibe góor ak jigéen mag ak ndaw yàlla doogale nag woote nañ bisub jaayante ci weer bii ñu nekk di décembre le 26 di dimanche bii di ñëw bu dellu see mu woote jaayante boo xam ne nii nag dañoo soxla téeméeri murit yoo xam ne ni kenn ku nekk da nga jaayante ak Serigne Touba 1000 pounds 1000 pounds yooyu bu ñu ko amee ni ñu bëgg bu ci yàlla ak yonent bi ak Serigne dina mën a jàppandi ñu ngi woo ñëpp nag góor ak yéen mag ak ndaw ku ñëw itam na nga xam ne le Serigne bi waxante màggal ga rek ne ne ne ganaar waaye néewuma gëleem li ko dalee ci ganaar bi ci gëleem lu waan lu waay man waaye nag lii itam noonu rek lay demee mooy sëriñ bi ku ne xam ne ne xeebul néew waaye ku ñëw daal na a jaayante ku ne xam ne jaayante du doon lu woyof du doon lu yomb lu dis gan lay doon ñu ñaan yàlla mu ñu jàmm ca bis ba te ñu tal ko te ñu am lu kawe suñu yaakaar yu barkat si rahmaan rahim barki borom Tuuba salaamaaleykum wa ñu ngi siyaare mbokki murid nekk ci àdduna bi yëpp ak mbokki jullit ñëpp euh, bu ngeen gisee ndaje bi euh, murid yi toog di woote euh, lenn képp ko muy bëggal sëriñ Tuuba kërug lislaam fii ci Tuuba Angleterre dëkk bi di London Euh, liñ ciy leeral rek mooy kër gi maanaam fan tàmbale woon fi mu toll ak fi mu jëm fan tàmbale woon mooy gis nañ dañu am kër Sëñ Tuubaa gun fi gisoon ba taxoon ñu woote fii euh, ci euh, ci ab liggéey boo xam ni maanaam toll tolloon na ci cent cent cinquante mille pounds kër ga cent cinquante mille pounds lañ ci soxla woon ngir bëggoon a dem ci banque bi waaye ba ñuy ba ñuy dajale cent cinquante mille fekk na maanaam kër ga cate waaye su sëriñ bi taw féexal nu ñu gisaat beneen kër goo xam ne kër gi maanaam mi ngi ñu ñu ngi koy weccee maanaam ci huit cent mille pounds huit cent mille yi nag daanaka banque bi daf noo xamal ni moom balaa balaa mën a wax ñu am deux cent cinquante mille mooy trente pour cent yi nga xam ne moom la ñu war moom moom la moom la ñu daaj deux cent mille yi nag maanaam lañ fi dajaloon muy cent cinquante mille yi moom mi ngi fi ba tey waaye fi mu ne nii li ci des li ci des nag li waral woote bi mooy yeneen cent cent mille pounds yi nga xam ni moom lañ soxla fi mu toll nii ci nu mu gën a gaawee loolu moo tax murid di woote la 26 bi di bisu jaayante te bis boobu bu buñ ci àggee bëgg nañ mu dee dee maanaam téeméeri murid yoo xam ne maanaam ñu ngi ci dëkk bi tey te te te seen mooy bëgg a liggéeyal ñu jaayante maanaam cent mille pounds yooyu maanaam muy cent murid ak bépp murid boo xam ne tamit maanaam sa yéene ci Sëñ Tuubaa ak sa pas-pas ci Sëñ maanaam sa doole nu mu toll maanaam ñu ngi koy soxla ci bis ba waaye lay la nga xam ne mooy yitte ji dëgg-dëgg daal mooy téeméeri murid yoo xam ne bu boobaa la 26 danañ mën a jaayante seen diggante ak Sëñ Tuubaa joxe 1000 pounds yoo xam ne 1000 pounds mi mi ngi toll ci 1100 moom lañ soxla maanaam le 26 loolu moo waral loolu moo tax maanaam ñu woote euh, jaayante bii di di le 26. kër gi nu gis ñi nag maanaam yitte ji nu ci am lu tax maanaam murid yëpp boobu ba léegi maanaam kenn noppaluwul kenn sa xel euh, dalul mooy kër gi dafay doon ndamul lislaam bu ñu ko amee. ndax barab la boo xam ne ab église ak église la maanaam te xam nañ église moom li muy représenté maanaam ab église lañ gis maanaam bëgg koo soppi def ko kërug lislaam def ko def ko def ko kërug sëñ Touba. loolu moo tax maanaam ñu di ci woo muritu àdduna bépp ak képp koo xam ne yaa ngi wax ashhadu an laa ilaaha illallaah wa ashhadu muhammad rasulillah ñu ngi lay woo ci liggéey sëñ Touba bi xam ni du liggéey sëñ Touba na sëñ Touba la ko taxoon a jug lépp mooy ndamal lislaam waaw ndax ndax la mu waxoon la mu waxoon yonent bi rek wa sunnatoo insha rabbi maanaam maanaam loolu moom maam moo moo koy wéyal ba fi mu toll nii te kilifa gu baax mës na maa wax 2019 ni ma de na ngeen xam ni maanaam këru Sëñ Tuubaa di dëkk bu mu nekk kër ga mooy gaalaaju murid ya maa ngi delluwaat rek di yeesalaat kàddu yi di woo nag waa UK bi yëpp daayira bi fi nekk yëpp di daayira Serigne Touba rawatina daayira bi nga xam ne ni mooy fédération UK bi mu westab si ronde bi ne xamatin ci njiitul Baye Dame Gueye fépp fu jëwriñ nekk te dégg suñu kàddu rek xamal la yaa ngi ci biir kenn ku nag ñu ne ko yëgal xam ne kër gi fii lañ koy wut ci London waaye nag murid yëpp ko moom jullit yëpp ko moom kon ñu ngi woo ñëpp ñaan yàlla ñu àgg ci bis ba jàmm tam lu kawe suñu yaakaar asalaamaaleykum wa rahmatulah